tey boo leen tolloo ci 5300 membres kenn ku ne di liguey ngeen nek ci région Matam bi am ay caisse un peu partout pour jigéen ñi nek ci gox-goxaat di fa jóge di mën di ñew di liguey ak yeen bu ñu ñëwee ba fi yexi si fekk si leen fii dama ne kon ñi ngi toucher les acteurs de l'économie sociale et solidaire te loolu lañu président Macky Sall sant kon loolu su amé bu yëkkatee juroom ñetti téeméeri million ne dina ko duggal ci secteur bi duñu bett mu ne ñu nangeen ko defee ci ñaari fànn mutuelle isolée yi nga xam ne boo fa demee danga fa fekk nit ñi ci gox goxaati jël leen pàcc jox leen moo tax ñu yëkkati fanweeri million tey ne dinañ ko jagleel mutuelle bamtaare nga xam ne dina ko permettre moom tamit mu mën a continuer li nga xam ne mu ngi mais mu ne yemul foofu am na acteur yoo xam ne ci wàllu xëy na exploitation ci wàllu courant wala ci wàllu yeneen am nañ ci ay jafe-jafe ci seen liggéey mu ne ñooñu ne ñu yëkkati ay koppar yoo xam ne dañ leen koy jagleel dimbale leen ci ñu gën a mën a taxaw. donc tey am na ci wàllu subvention euh, euh, ñaar fukk ak juróom-ñaari millions yoo xam ne dinañ ko indi pour jagleel ko acteurs yi niñ koy defee aussi mooy bon yi mi ngi fi yëpp préparé nañ ko dinañ jël yëpp pour région Matam bi jébbal ko gouverneur ak préfet ak sous-préfet. su ko defee ñu xool acteur bu ne ñu mën la jox sa bon bon bi bu ñu la ko joxee boo ko jëlee da ngay dem post ndax ministère bi dafa lëkkaloo ak la post ci programme boobu boo demee poste joxe bon bi ñu jox la ndimbal li nga xam ne président jagleel na ko kuréel yi ngir ñu dimbali ko ci gën a mën a dékku mbas mi. tey chèque 10 millions la woon ma jox parce que depuis mars euh, covid 19 ñëwee depuis bu mbas mi ñëwee liggéeyuma. suma kër laa toog te suma yaakaar ak suma dund ak sumay xale yëpp si sama liggéey lay teg man dama ñafe rek dama ñafe xooluma kenn féminin fàtte nañu duñu financé duñu woo waaye fi mu si nag fàtte wuñu ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax am nañu quatre guichets waaye quatre guichets yëpp la fi mu si di di di financé jigéen ñi ñuy liggéey ñu ñuy dimbale ñuy fay de interview ndaw la ñuy defar